teewlu ci Sénégal set dalee nag jàmm ci seen émission Scoop Magazine comme nu muy amee euh, jeudi bu ne bu waxtu wi jotee tey ñu am mbégte di dalal ab woy politique <coughs> muy docteur Seydou Diallo Seydou ñu ngi lay nuyu. waa jërëjëf Mbissane euh, di jaajëf di la jaajëfal ci émission bi invitation bi mm-hmm. di nuyu téléspectateur u Sénégal set euh, ak képp ku ñuy seetaan frère Patriot aussi yi ma bokkal parti ñuy seetaan. Mhm. ngay coordonnateur départemental du parti PASTEF à Kër Massar ngeen réussir benn démonstration de force bu jéggi dayo loolu ñëpp mën nañ ko reconnaître gis nañ mbooloo mu fa am et tout euh, coup de force boobu wala démonstration de force boobu nan ngeen ko réussir au niveau de Kër Massar. waaw mbisaan sant yàlla nekk ci parti boo xamante ni on est très structuré. Mhm. Euh, parti boo xamante ni dañoo engagé wu am dynamisme. donc su ma nee le meeting bi en moins d'une semaine lañ ko préparé euh, def communication bi ñu mobiliser euh, lu doy nii nga xamante ni euh, comme niñ ko waxee Kër Massar moo aye mhm. waane Sénégal moo wuyu si ku xam département Kër Massar xam ne département bu mag la moo mujjee judd si département yi ne quarante sixième département du pays ba am presque six cent cinquante mille habitants poraliser six communes yëmbal nord yëmbal sud euh, Kër Massar nord Kër Massar sud Malika ak Jaxaay donc ñu ni neen rek département Kër Massar mënoon nañu euh, feesal meeting bi. Mhm. waane bii demee ba Sénégal nag yëpp wuyu si. Mhm. dafa nekk mbégte bërëb ba nag euh, tuuti na tuutiwul. Mhm. tuuti na parce que Sénégal xajuñu fa. tuutiwul parce que bërëb bu symbolique la ci ñun parce que ku xam bis ba dañ doon rendre hommage ak suñ suñ premier militante bu bu décédé ci ci ci ci ci politique ci parti Pastef mooy feu Mariama Sagna mm-hmm. ñu ñaan yàlla yàlla xaare ko àjjana suuf sedd si kawam mm-hmm. euh, avant meeting bi gisoon nañu dispositif policier ay gendarme gendarmerie déployé wu bu baax a baax trois jours même avant euh, l' événement est ce que gars yi facilité leen facilité nañ leen tâche bi avant pour meeting bi mun a am foofu est ce que amul ay gàllankoor yi nga xam ne nii jot ngeen jàmm jàkkaarloog moom. waaw ay tolof tolof amoon na ci meeting bi. Mhm. Euh, pour autorisation bi parce que mhm. euh, bi président Ousmane Sonko dafa annoncé woon. Mhm. le 21 la ñu waroon def meeting bi. le vingt 21 muy samedi 21. bi mu ko annoncé bi ñu ko waxee mu dem ci benn activité bu bu bu JPS Pikine. Mhm. mu wax ko fa ne le vingt 21 bëgg nañ def un méga meeting à Kër Massar. alors que weekend lañ nekkoon lundi lañ war a déposer euh, kii demande yi. ni yàlla def waa Benno xam naa dégg information boobu dem teel a déposé presque à très tôt le matin bañ ñëwee ñu ne ah am na ñu fi déposé nee nañ aussi dañoo am activité dañuy investir seen candidat Macky Sall. même lieu même heure. donc ñun nag bi loolu amee ñu ne ah comme que noonu la après ñu ñu rejeté suñu demande bi parce que ñoom ñu am primeur njëkk a déposé. de ce fait ñu ni ñu am xalaat comme que samedi dimanche bi. ñu nit ñu déposé suñu. suñu suñu demande pour le dimanche mooy bi ñu xëyee mardi le euh, dimanche lundi le mardi man ak samay naataango euh, euh, coordonnateur Cheikh Tidiane Cissé ak usmaan Diop Cheikh Tidiane Cissé di cordinateur Kër Massar Nord ak Ousmane Diop di coordonnateur Kër Massar Sud ñun ñoo ko organiser ndoo meeting bi bi ñu déposé le mardi nag yàlla def ñu accordé ñu ko voilà même avec sous réserve d'interdiction mais lu gën a surprendre nit ñi samedi bu mu jotee euh, le 21 ñu foog ne bennoo quand même woote nañu président Macky Sall dina ñëw bi ñu xëyee ñu dem foofu pour xool terrain bi par rapport ak suñu logistique ñu war a installé le le le le truc le le samedi soir ñu gis ne ay jeunes ñoo fa nekk di football finalement xamuñu lu tax ñoom organiser wuñ donc. fépp fu ñu ne Pastef day organiser nañ ñu wutal ay gàllankoor. xam naa loolu aussi bokk na ci lu gën a motiver militants ak sympathisants yi. pour wone ne vraiment que ñoom suñu organiser woon la samedi. ñun ñoo leen di gën a mobiliser. donc loolu euh, aussi lu jara bàyyi xel la mais ni yàlla def meeting bi dugg nañ ci bisimilahi rahman génn nañ alhamdulilahi rabil alamin ba président Ousmane Sonko sa jour boobu dane ma vraiment on vous note vingt cinq sur vingt ça veut dire mu àndal ñi wuyu si euh, vraiment jéggi na doye parce que ñi nekkoon rek ci enceinte terrain bi mm-hmm. waxuma la nag euh, di euh, couloir yu mën ci terrain bi mm-hmm. foo sànni mbaat mu tàkk par exemple soo ñëwee ñun par exemple bi ñu yegg si pour yegg ci ci ci ci ci ci podium bi mm-hmm. presque dox nañ plus de cinq cent mètres donc pour wane ne rek nit ñi wuy si nañu et c'était une réussite totale mais aussi dégg ngeen seen adversaires yi nee nañ terrain Yékini ful bi bëri na gaa mais terrain Yékini lu ndaw la benn espace bi nga xam ne nii dafa tuuti moo tax boo ko filmé da ngay am impression ne nit ñi dañoo bëri fekk lu mot mille personnes sax xajuñu fa loolu nga gis wala. non loolu xam nga rek waxu waxu adversaire la. Mhm. normal ñu waxee noonu ñun pas terrain mais au la terrain bi. Mhm. c'est que symbole bi bi terrain bi représente en 2018 dañ fa organiser woon meeting. ak président Ousmane Sonko boobu département Pikine ñoo ko organisé woon. Mhm. je de passage le coordonnateur départemental de Pikine muy Cheikh Alioune Bey mi ko fay organisé ñu doy ni ci nit woyuñu woon. Mhm. mais diggante bi Pastef màgg na fi. Pastef euh, massifié na fi donc keroog li fa wuyu xam maa ngi la naan terrain bi Sénégal yëpp xajuñu fa mhm. li wuyu si xaju fa mhm. ku seetaan ñëwoon ci meeting bi dinga xam même nit ñi bi ñu paree mhm. am nañ ay jafe-jafe même pour pour ñibbi ndaxte ñi ngi ciy baalu ax ñu bëri parce que file de véhicules yi dafa bëri ba y avait des bouchons te euh, direction yi ne woon ci meeting bi yëpp dafa bëri woon ay nit am na ñoo xamante ni ci seen terrasse yi nekk am na ñoo xamante ni à travers les réseaux sociaux parce que bi ma xoolee page président Ousmane Sonko presque avec quarante cinq mille personnes en direct di seetaan waxuma nag yeneen médias yi pour couvrir événement donc euh, meeting ñu wax léegi déroulement meeting bi ak le discours du président Ousmane Sonko discours bi nga xam ne ni un discours guerrier des formules guerrières gatsa gatsaak affaire yi demee noonu discours boobu noo ko jàngatee discours gi nga xam ne nii mais man discours dama koy saluer Mbisaan mhm. c'est normal dañoo xam ne ki nekk en face moom mhm. euh, gis nañu lu mu def comme on dit en français mhm. on apprend des erreurs du passé gis nañu nuñ def Khalifa Sall Karim Wade n'est-ce pas ñun nag président Ousmane Sonko ko xam xam ci ligne de conduite bu mu nekk musul euh, yox yoxi ci benn yoon donc loolu noonu dañoo gis lu fi jot a jaar parce que dossier bi discours lu tax mu tenir ko da ngay xool dossier biñ koy biñ koy biñ ko biñ ko jiiñ mhm. présumé de viol mhm. yow nga xamante ni preuve ñu teg yëpp dafa décharger président Ousmane Sonko. Mhm. ñoom ñiy jiiñaate amul benn élément de preuve bu ñu indi. donc dama ne dossier bi enquête gendarmerie la waroon yem waru woon saa yegg si fii nii fii fi fi fi ñu toll nii. mais malheureusement saytu nañ président Ousmane Sonko depuis c'est euh, impôt domaine quinze ans yu ñu fa def xool ci livret de domaine xool est-ce que am na fa ay terre lépp xool nañ gisuñu lenn loo xam ne nañ ko tuumaal leen lañ mën def def seen benn complot ourdi bi nga xamante ni mise en scène bi doxul mm-hmm. acteurs yi dañu nekkoon ay cuune xam na mm-hmm. moo tax loolu moo leen topp mais nag dañ ci bëgg a mooy te vraiment mois mois de mars bi passé deux mille vingt et mm-hmm. euh, loolu ku mu junjul vraiment ku mu doyul suñ ko naree toll lu raw loolu moo nar am te foog naa ne ñun Sénégal duñu duñu du ñu yegg foofu parce que injustice bi ne ci réew mi doy na mag Sall am na lu ko doy sëkk ci ay dossiers yoo xamante ay nitam ñu ko jege ñoo xamante daf ñoo dañoo luubal lu gë dossier bu gën a récent mooy Cour des comptes wane ne mille milliards yi sénégalais dajale woon lii ñu def ko genre télécom téléthon askan wi contribuer ci leneen lii ñu dem lebi ko ah. ba pare ñoom ñu jël ko tëj nit ñi ne leen couvre-feu bu leen génn ñoom ñuy pàccoo alal jooju nga xamante ni askan wi la waroon dem loolu rek doyoon na ko moom su nekkoon quand même koo xamante ni justice moo ko taroon taxoon jub ñooñu dossiers yi waroon na leen yóbbu tribunal ñu gérer ko leneen li moom moo wax ñëpp dégg ne moom am na ay dossiers moo ciy teg loxoom donc loolu wane na ni lii ñuy instrumentaliser yëpp ah, mën nañ ne loxoom génnu ci ndax ragal adversaire politique je pense que démocrate ak républicain bu muy wootee dafa des voilà mais dossier bi dossier bi ngay wax dossier Adji Sarr supposé viol nee nga dossier bi dara nekk ci ci lan nga basé wu exactement ba wax loolu parce que ñoom génn nañu certificat médical et tout et tout convoqué nañu Ousmane Sonko doyen des juges convoqué na ko et tout bañ na def test aada ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc yooyu yëpp ñoom ñu ngi koy brandir ne bu dee tamit. Euh, il n'a rien à se reprocher mënoon na def test ADN bi mënoon na répondre question doyen des juges mais yooyu yëpp defu ko ñoom loolu lañ leen di reprocher aussi kon yow fan nga basé wu ba ne tamit dara dara amu ci. Euh, Mbissane dossier bi soo ko xoolee. Euh, nga xo def historique. dañ ne suñ ne viol. présumé de viol pièce maîtresse bi mooy certificat médical. gis nañ fi tout récemment ci diggante bi am na ñoo xamante ni ay présumé de viol la ñu accusé mooy. Euh, Californie l'insulteur de Macky Sall waaw waaw kooku bi nga bi ñu defee sept médical ñu gis ne yeggul ci ndaw si lan lañ ko mujj accusé coup et blessure Sitor Ndour bi ñu xoolee nee nañu yaayu pénétration donc dañ ko mujj tëj mhm. donc yow ñu ne pièce maîtresse bi mooy mhm. certificat médical mhm. certificat médical déchargé président Ousmane Sonko liñ ci wax ñëpp gis nañ ko parce que c'est un certificat médical boo xamante ni foo dem ci réseaux sociaux yi di nga ko gis. Mhm. donc ne la so ndaw si amul kenn kum ko séqal ci quarante huit heures yi. Mhm. fekkuñ ci moom benn lésion. te ñàkk na ndawam lu yàgg. Mhm. donc su ñu nee loolu noonu à partir de ce document rek fa la ñu waroon yàmmale mbir mi ci enquête de la gendarmerie. ñu dem leneen encore ñu ne ndaw si waxtaan ak sëriñam. def ay audio. bala ñuy ñëw foofu ñu des ci certificat médical bi parce que certificat médical bi aussi bind nañ ci des prélèvements en vue d'un test ADN test ADN bi nga xam ne ni Ousmane Sonko aussi nee na du ko def. aussi loolu waaw xam nga dama lay expliquer yow soo nit su ñëwee ne dañ ko violer rek première chose bu ñuy def mooy. Mhm. su ko médecin bi consulter ba pare. Mhm. day def ay prélèvement loolu loolu procédure bi moo demee na mhm. dañ def ay prise de sang pour xool defal yenn benn sérologie certaines maladies infectieuses parce que. comme que am na ay infections sexuellement transmissibles mhm. yoo xamante ni ay VIH ay syphilis yeneen pathologie yoo xamante ni infectieuse mhm. dañ la def ay prélèvement génital mhm. xool ndax yow kii yegg si yow wàllu la ay jàngoro loolu loolu c'est c'est si procédure bi la bokk mais ci kii nii dañ ko defal defal nañ ko prélèvement c'est évident suñ ko defee prélèvement dañ ko yóbbu labo analyser ko mais lu gën a graaw mooy man dama liir fan yi ñu ne prélèvement bi médecin bi attesté na daf ko def le 3 n'est-ce pas février la ko def 2021 ma gis si réquisition procureur kii bi doyen des chambres procureur ñu ne le 2 lañ ko def te yow résultat euh, examen bi ñu def le 3 anam ñun dañoo génneel un faux prélèvement ñu ne on a vu des spermatozoïdes vivants foofu ñu jóge alors koo xam ne médecin bi examine nee na kii sëyul depuis 48 heures et que fekkul benn légion si moom ñàkk na ndawam lu yàgg donc ñoom ñi bind seen seen réquisition war nañu wax fan lañ jëlee seen faux prélèvement boobu donc pour wane ne euh, lii nii dañoo nekk di nasaxal justice su réew mi te loolu baaxul parce que lii su jàllee mooy ñun góor ñëpp on est en sursis jigéen mën na la yuuxu léegi ko violé nga ñu brandir certificat médical ñu ne kii kenn yeggul ci kawam mais comme que wax na rek donc moom la ñuy gëm dañ lay yóbbu chambre criminelle xam nga loolu aussi euh, waruñu woon yegg fii quoi. Mm-hmm. parce que Sénégal dañ ko yàgg naw ci démocratie dañ ko yàgg naw ci état de droit. Mm-hmm. donc suñ ñëwee ci ci ci président Macky ñu nar a naxasal justice vraiment magistrat population bi war nañ jug parce que comme di dit euh, la justice est prononcée au no du peuple. askan wi ku leen xool soo defoon micro léegi par rapport ak dossier bii nii. li nga xamante ni dëgg bi xam nañ déjà fu mu féete donc président Macky Sall maa ngi koy ñaan bum mu forcé li mu bëgg rek parce que su aussi leneen lay yeneen problème lay indi la réew. yeneen problème lay indi bind nga sa testament wala bindagoo yow. fii ñëpp a bind seen testament ndigal bi jib na donc euh, ñëpp bind seen testament di xaar parce que li ñu nar a def injustice la. loolu ñun xam nga préféré sax nga dee ci ngor que ngay dund ci humiliation lii moom su jàllee vraiment on tien la le, le peuple devant les faits mooy kenn warul nangu lii nii parce que population ñoo war a jóg ne procès waru fi am parce que tellement y a beaucoup d'éléments de de preuve en décharge pour président Ousmane Sonko ndaw si ba ñu jàkkaarloo ak moom ak président Ousmane Sonko di devant le doyen des juges mhm. biñ ko laajtee ana say preuve joxewul ay preuve nee na doyen ji loo def baax na alors que président Ousmane Sonko indi na preuve certificat médical indi audio MC Niass indi rapport interne de la gendarmerie bu wone ne le procureur l'ancien procureur moom am na manipulation yu mu def ci ci ci ci ci kii bi. ci pro euh, ci procès verbal bi. Mhm. donc yooyu noonu yëpp c' est en décharge du président Ousmane Sonko donc loolu su nekkoon rek ci dëkk boo xamante ni euh, justice bi dafa tëddee njaaxanaay vraiment waruñu woon yegg fii ci enquête ba la ñu yem dossier ba ñu classé ko. même lu ñu ko indi ci bureau douane yi di mu waroon a am grand def non lieu ñu dem seeti leneen mais comme il sait que le président Ousmane Sonko c'est le chef de l'opposition qui est adversaire de taille te ñoom dañoo def ay luubal yoo xamante ni ragal nañ leen su ñëwee da leen di topp comme ni ñu def ñoom Karim Wade donc loolu moo leen tiital ñu bëgg a mooy ci dossier vide bi mais quand population baa ngi fii le peuple sénégalais est très éveillé mais quand même dinañ au moment venu